indi naa dox naa dox naa sa diggante ak mooy yàlla léegi yaa ngi bokk ci laa xawfun alayhim wala hum yaxzanoon laa yaxsawna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ci ngay bokk doo mën a moyeti yàlla ci benn loolu mooy julli kon julli gi am na lu mu dindi ci nit ki am lu def ci moom natt asaka ku xam na ne natt asaka innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiini wal aamiliina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal xaarimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil faridatan min allah farata la asaka jooju dana dindi dana dindi ci nit lu baree baree bare nay dana dindi ci nit ki soxot ndax asaka ji boo ko xasee génne li lay xamal ne yàlla rek a yàlla uhuh. boo ko xasee génne du cee génne ku la neex nga ko jox uhuh. ku ko yellool sa noon bi bi nga sësal kër. bu ko yelloo. waroo ko fee jëli di ko jox keneen. noon. sa noon sa noon bi nga dëkkal. bu fekkee ku ko yellool la. Mhm. sa yoo ko fee jëli di ko jox keneen. Mhm. waaye boo ko dee jox bu yàggee mu bëgg la. dëgg la. soo ko dee jox bu yàggee mu bëgg la. Mhm. xam naa dama doon bañ a guddal waaye koor sax nga ma laajoon. waaye lii am na njariñ de. fii foofu foofu baax na. ñu doog a dikk nag ci koor. koor day dox ci diggante diggante nit ki ak day def ci nit ak dëggu dindi ci moom ak ñàkk dëggu ndax ku ne xam ne li tax yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom ne ko xeeti yàlla yëpp yu ci bari mën naa koo teg ci sa loxo nga séddale waaye koor moom maa koy séddale ndax maa xam ñi woor ak ñi wóor ñi woor ak ñi wuur maa leen xam moo tax fayal weeru tedd la sahru ramadan allazi unsila fihi alquran kutiba aleykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum waaye koor googu nag loo ko mën a def mën a def mën a def te bokk ko ci laxalakum tattaqoona yooyee da ngay da ngay da ngay xiif rek ak amar xiifal lay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqaddama min sanbihi wa maa taaxara mm. képp koo xam ne woor nga weeru koor te woor ko ca na ko suñu borom diglee mm. suñu borom dina la jéggal sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mm. ndax ki woor ba bëccëg mu dugg ci néeg mm-hmm. am lu mos génnaat fomp gémmiñam ba mu set mu taxaw ne kooru tey jii de moom tàng na lool jant bi war naa gaaw a so mhm. ku dul yàlla ma taxoon muy mos loola gisu ko gis ko dëgg la mhm. yàlla ma ko gisoon nag mhm. moom moo ko mën a moo ko mën a lijjanti moo tax mu ne maa koy fayal sama bopp dëgg la kon taxawaayu koor ci lislaam lu munta ñàkk ci doomu aadama bi ci bu fekkente ne mën na ko fa man kaana minkum maridan la wax su fekkente ne mën nga ko nag da koy woor waaye soo ko mënut mooy nga feebar da ngay bañ a woor te fay axwaala safarin nekk ci tukki boo xam ne laajul ngay woor waaw loolu yëpp noonu la ko toppee ba aaya ba jeex kon day mel ne lu munta ñàkk ci doomu aadama bi la julli nag bokkut ak koor julli moom wàccu nit ki li fekk muy faatu julli du wàcc doomu aadama bi li fekk muy faatu ndax soo dee julli taxaw xet dangaa war a taxaw jon waroo wéeru ci dara solo la wóoree soo taxawee. Hmm. soo wéeroo da ngay daan. Hmm. da ngay taxaw te wéeru. Hmm. bul toog wéeru da ngay taxaw wéeru. su la wóoree soo taxawee soo wéeroo daan da ngay toog bañ a wéeru. su la wóoree ne soo taxawee soo toogee soo wéeru wut daan nga toog. wéeru wéeru dëgg la.